Birama maa ngi lay nuyu di la euh, effectivement lu nga wax am na solo parce que loolu day wane conviction mhm. euh, ñun gox yu bees yaa ngi fàtte anta bi parce que entre bi dañ ko boole si turu parti bi muy alliance nationale pour la transparence et l' abondance et à mhm. l'honneur du professeur Cheikh mhm. euh, ñun bu ñu jàppee ne amuñu candidat la ñu ne suñu choix mooy le souverainisme mooy Sénégal da war a moomaat boppam ñu xool candidat bi nga xamante ne mooy proposé wala lu jege souverainisme muy candidat wu Pastef wala candidat bu Ousmane Sonko ñu bokk ñu njëkk dem adhéré ci coalition bi donc dem jàppale ko en terme d'idéologie parce que dañu ne fu mu toll nii Sénégal victoire u souverainisme moo fi war a am moomaat sa bopp su ma ñëwee ci grand Moussa lu mu doon wax daanaka lu mu wax yépp mun naa wax inverse bi euh, xam naa du nekk cours histoire nag mais dina am solo ma ñëw si lu ma gëm ba gëm mooy Sénégal gannaaw gu ko tubaab bi nootee ba dem bàyyi leen ci benn doxalin benn architecture de gouvernement nee la nii la dëkk bi tënkoo jël leen suñu constitution ngeen copier coller jël leen suñuy norme ngeen copier coller jël leen suñu xaalis ngeen changer euh, sigle bi ngeen doxal jël leen suñuy entreprise ngeen doxal ba pare ñu contrôler leen Sénégal boobu noonu moo fi nekk depuis tubaab bi mu fi jógee. Sénégal boobu nag bu 2000 jotee Abdoulaye Wade ñëw ne soppi dañuy soppi loolu sénégalais yi ne ko d'accord nañ dañuy soppi loolu waaye Abdoulaye Wade bu mu jëlee soppiwul dafa jël constitution bu fi newoon ba ko fi daanaka gën a dooleel président président moom bu muy ñëw président mënul woon. gis waaw waaw waaw moo tax ma man damay hmm. am nga daa am solo. du ma yàgg foofu moo tax ma ne la. gis nga Sénégal continuité boobu mooy soppi bu ñu bëggoon mooy tubaab bi nu mu waxoon noonu ngeen doxalee seen réew. ñu ne ñun bëgguñu loolu dañ ko bëgg a changer Ablaye du dig ko askan bi ñëw jël nguur gi dafu ko. président Macky Sall ñëw dafu ko mu nekk ci benn continuité historique le Sénégal est gouverné de la même façon depuis 1960 ba léegi yoon boobu nag la Sénégal yi bëgg a dakk foofu noonu enjeu élection bi foofu la.